واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم ba léegi kon ni ngeen ko xamee woon rek ñoo ngi ci daara ji ñoo ngi ci daarul maarif al islaamiya mooy daaray xam-xami ji nga xam ne mi ngi jaar ci ëttub télévision GMT mooy télévision grand grande mosquée de Touba bii nga xam ne euh, waa daayiratu muxaddamatul xidma bi nga xamante ni ñoom la ñoo yor yu bari ci dëkk bi ca jumaa ji gën cee ràññiku ñoom ñoo ko amal kon daaray daayira muxaddamatul xidma ji ñu tuddee daarul maarif al islamiyya cañ di ci delluwaat rek ci njàngaleem cosaan mi njàngaleem majlis ba tax na ñu tudde ko mooy émission bi ñu tudde ko daaray majlis ji nga xam ne duñ ne moo gën a yàgg Touba ndax Touba nag jekk daara la sosoo waaye nag mooy daara ji njëkk ci biir jumaa ji kon ñu wéy ba léegi rek ci njàngale mi ci bindu fiq bi <coughs> Euh, di leeral rek ne lii jëfi doomu aadama la mooy daayira bi ko bi nga xamante ni ak seen seen télévision bi GMT ñoo koy amal lu baax rek lañ ci jublu tasaari xam-xam seen mbokki taalibe yi waa daara ji nga xam ne ñoom la ñuy jëflanteel ñu ñu leen di jox leçon yi it loolu rek lañ ci jublu yëfi doomu aadama nag mat moom yàlla rek moo ko def moo tax ku ci gis ci biir bind yi muy bind yii may joxe man wala bind yi ñeneen di joxe gis nga ci lu wuuteeg li nga xam. delluwaatal rek ca ka ko doon jàngale ca xam ne doomu aadama rek moo ko def mën naa nekk njuumte lu jóge ci moom wala mu jóge ci yow waaye loolu moom yàgg na ci koy jàngale yàgg ngeen dégg li ñuy wax sabqu lisaan wala sabqu xalam day dal ab bindkat day dal ab jàngalekat ngeen di bàyyi xel loolu. kon ñi ngi yemoon keroog ci bind bi weesu ci wa wa fil ittifaaqi ala salbi bihi in sunia taraddudun tey li ñuy leeral dañ doon wax façon ndox yi nga xam ne baax na keroog comme ni ko Cheikh al indi woon wa in jumia min baax aw zaba di jumudihi tey ñi ngi dem ci bind yi nga xamante ni euh, ndox yi nga xam ne dañ naan gënut laa kon moom la ubbee bind bi laa bi mutaxayirin mooy laa yarfau alxadas wa xukmul xabas bi mutaxayirin ndox mu soppiku du yëkkati am toj mënees cee jàpp te yëkkate xukmul xabas mooy mbubb mu am sobe mënu koo fóot ci misaal yaram mu taq sobe nii ci kaw mënu koo raxas tappi bu taq sobe ndox mii may waaj wax mënu koo raxas lii may waaj a wax bi mu tax a yére ndox mu soppi ko bu soppi law nan couleur bi moo soppiku wala taaman cafka gi moo soppiku ittifaaxan wala riixan ba tey alal mashhur ba tey xet gi soppiku kon ndox mi nga xam ne moo mën a yëkkati am toj bu mu soppiku ci ñett yi couleur bi cafka gi xet gi lan moo koy soppi bi maa yufaariquhu xaaliban ci li nga xamante nii dafa baaxoo taqalikoog moom ci aada ndox mi bu ko diw soppi diw ak ndox dëkkuñ ndox mi bu ko kafe soppi ba couleur bi soppi ko ndox mi bu ko soow mi soppi ndox mi wala iyaazu billahi taala bu ko sobe soppi ndax loolu kat baaxoo wuñ koo xam ak ndox mi loolu nag da ci déggee ni yi nga xam ne moom ndox mi ñoo dëkk nga xamante ni <coughs> naqare nañoo taqale dañ ko jégale loolu danañ ci joxe misaal bu njëkk ndabi ndabi ba ñi nekk ci àll bi waa baadiye bi jamono ji neexutoon moom la Cheikh Mamadou Mawlud di ci kafaaf naan laa tattaqil urbu awaaniha wala taslamu min taamin wa riixin sahula waa waa kaw gi day amuñ pexe moo tax seen këll yi ci lañ daan jàpp ci lañ daan naan ci lañ daan lépp moo tax nag néew na mu ne nga daan gis seen ndox moo xamante ni xet nekk dara ci xet desu ci wala cafka waaye ñooñu daan ñun ko jégal ndax loolu nag pexe amu ci waaye nag jamono jii kenn du waxee noonu robinet yi bari na alhamdulilah seetalay jàppukaay yi bari na kii yi bari na moo tax kon loolu dafa nekk ci bokk na ci at yi nga xamante ni day topp rek jamono joojo waaye nag da nga ciy déggee ba léegi ne ku nekkoon ci àll bu sori boo xamante ni ñu ngi dund lii bu fekkoon ne am na àtte bi mën naa dellu si ci ñoom kon li ko soppi min taaxirin moo xam lu laab moo ko soppi loola xamal ne mënees na koo jëfandikoo ci aada waaye mënees na ko jëfandikoo ci jaamu yàlla mooy mënees na koo naan wala sangoo nii kese lu wut sangu janaba waaye nag kenn mënu koo sangoo farata kenn mënu ci raxas sobe aw najisin wala muy loo xamante ni <clears throat> sobe moo ko soppi wal iyaasu billahi taala lu sobe sopp moom borom xam-xam ba wax rek wal maau in bi najisin taxayyara fa muta najisun bi ijmail wara ndox moom bu ko sobee so soppee ah, jàppal na sobe la rek kenn du ko jëfandikoo te danañ leen leeral na sobe dañ koy teree jëfandikoo ndara ay masala yuñ settee danañ ko indi léegi ci bunt yi ñëw incha allahu taala balaa yàgg sobe masala yiñ ci sañee jëfandikoo ca bëriwut ngir ñàkk ngir darul rek kon li ko soppi bu dee lu laab la mën naa mënees na ko jëfandikoo ci aada waaye kenn du ko jëfandikoo ci jaamu yàlla kenn du ci jàpp kenn du ci sangu farata kenn du ci raxas fóot sobe bu dee sobee ko soppi moom comme li ma la wax léegi rek fa mu tënaj suñ bi ijmaayil wara xam ne dafa jaxasoog ndox mi diw gu laab wala diw gu bu diw gu laab comme li ma wax léegi rek bu dee diw gu sobe joxe naa ci misaal léegi mooy diw goo xam ne xaalata dafa jaxasoog ndox mi ba jaxasoog ma ba nga xam ne kenn mënu leen tàqale wa buxaarin mustaka buxaar mooy duxaan sa mooy saxaar mustakka dañ ne def na wax mustakka def na ko wax wala mastakka miim gi mënees na ko damm mënees na ko fatxa dañ ne sunu sëriñ bi ñu daan jàng dañu daan wax ne ilkun ruumi yu ñu tabax tabaxaru bi mooy xeeti façon cuuraay la woon lu daan jóge ci Room dañ ko daan xeeñoo xam naa lu xaw a neex la woon waaye lii di ca joxe misaal rek mustakka ak lu dul mustakka ci mooy xeeti saxaar soo gis mu jaxasoog ndox ba bàyyi ca dara yu mel noonu rek moo tax ñuy wax misaal yëpp la rek ala xaal kon bu xaar bu ko fekkee da ko dafa jaxasoog moom ba dem ba dem ci ndox mi ba nga xamante ni mi ngi ci su boobaa kenn du ko kenn du la ko jéggal loolu tax mu ne wa bu xaarin wala saxarus mustakka nee naa la mustakka wala mustakka ala xaal loolu comme ni ko seex Cheikh Moxtasar Xalil waxe day lor alal mashhur am na nag ñu jàpp ne du lor ndax lii dañ daañu wax ci kanam ne mook xet gum dendal rek ñooyam ala kulli xaal daal noonu la mel kon daal bu fekkee dafa soppi cafka gi nañ xam ne rek dëppoo nañ ci ne daan lor bu fekkee dafa soppi xet gi nag euh, ci lañ wuute ci la boro xam ne wuute wa xukmuhu ka muxayirihi mun a xukmuhu ndox mu soppi ko atteb la ko soppi kam atteem ka muxayirihi moog li ko soppi ñoo yem ndox mu soppi ko xoolal la ko soppi bu ko loolaab mooy li ñu wax léegi bu ko loolaab soppee mën naa mënees na ko jëfandikoo ci aada bu ko sobe soppee mënta laab mënta laabal wa xukmuhu mooy melokaanu ndox mi ka muxayirihi moo melokaanu li ko soppi ñooyam wa yadurru bayinu taxayurin bi xabli saaniyatin ka xadirin bi rawhi maashiyatin aw biirin bi waraqi shajarin aw tibnin wal azharu fi biiril baadiyati bihimal jawaaz mu ne lii may waaj wax bu fekkee dafa soppiku soppi dafa soppi ndox mi soppiku gu wér da ko yàq wa duru dana lor yàq ndox mi bayinu taxayurin soppiku gu wér ci lii may waaj wax wax soppiku gu wér dañ ne mooy lan mooy taxayur faaxis gu leer ba nga xamante ni ku ko gis xam xàmmi ko li ko soppi xabli saaniye mooy buumub goj saaniye mooy addalu mooy buum gi nga xamante ni dañ ko daan wëggee ci teen bi addalu ak jumtukaay yooyu ñuy wëggee lañ tudde woon ak saaniye kon jumtukaay yi nga xam ne day tuxal ndox mi nga xa dëgg-dëgg xam nga ne jumtukaay boobu du xeetu suuf ak yu mel noonu bu fekkee dafa soppi ndox mi lool ba soppi gépp nee na day lor loolu dañ ciy déggee mooy masal yi nga xam ne dëkkul ci ndox mi du ci xeetu suuf waaye nag dañ ko soxla ci ndox mi loolu bu ko soppee ndax dana loram du lor Cheikh Khalil nee na bu ko soppee soppiku ku wér dana lor loolu da nga ciy déggee ne bu ko soppi woon ku woyof du lor mooy masail yi nga xam ne goj bi ku ne xam na ne dëkkul ci ndox mi maanaam maanaam cosaanowut ci ndox mi ndax du suuf du xeer du dara ak buum la wala leneen wala leneen bu soppee ndox mi lool ba ëpp day lor da ci dégg nag ne bu fekkee sopp gi dafa woyof du lor waaye durru bayinu taxayurin bi xabli saaniyatin mooy yi loolu daañ ci déggee eh, yi nga xam ne dañ ci daan dañ ko daan def ci girba yi girba mooy xeeti kii mbuusi der yi ñu daan def ndox yi nga ci daan diw ngir bañ ngir bañ moo ndox mi soppi ko yooy yëpp rek da nga ko ci da nga ko ci mën a déggee eh, am na ñoo xam ne leen ci borom xam-xam yu mujj yi danañ ci dégg xeeti ordre de mi ñuy def ci ndox mi léeg-léegi walxulfu fi muslihihi kaddabri asaxuha ma fa xaffa anhu mulxi yi nga xam ne day defar ndox mi comme lu mel ne dab ak yu mel noonu dañ ne li gën a mooy bu woyefee jéggal nañ ko da ngay da ci dégg nag ne bu fooree kenn du la ko jéggal masala yi bari na ni ba tey li ñu doon wax ni mooy yi nga xam ne dëkku ci ndox mi waaye dañ ko ca soxla ka xadirin bi rawsi machiyati ni ki noonu ba tey xadir mooy xeeti déeg yi am ci àll bi bu fekkee dafa soppi ko ci neefare jur gi ak seen saw meeg yu mel noonu xam nga dégg ci àll bi noonu daan mel loolu day day yàqu lii nag moo xam soppiku gi feeñ na bopp wala soppiku metti na walla méttiwut moo tax mu ne kaxadiir lu mel ne ab déeg bu soppiku ci neefare jur gi wala seen xeeti saw meeg yu mel noonu kon bu soppikoo doonte sax soppiku gu méttiwut alaa kulli xaal loolu baaxut aw bi irin bi waraqi sajarin aw wala ni boo xam ne li ko soppi mooy waraqu sajar mooy xobi garab yi wala war axa tib n mooy xeeti façon su xeeti kew yeeg yooyu nga xam ne moo daan nekk ci teen yi nee na bu fekkee da ko loolu da soppi ba tey teen boobu ala kulli xaal bu soppi ko ba tey nee na loolu baaxut waaye nag ndara daroora amut moo tax mu ne wala wal azharu fi biiril bi bihimal jawaaz azhar ci ibnu rushd nee na ci ñaar ndox teen boo xam ne dafa soppiku ci ñaar yooyu ñu doon wax léegi waraqu shajar wala tibn bu dee teenu bu waa baadiye bi la niti àll bi nga xamante ni euh, day jafe ci ñoom muur seen teen yi tëj ko yëpp nee na li gën a wér ci Ibnu Rushdin mooy dagan na waaye loolu rek mi ngi dellu ci nit daruura bu fekkee am na daañu leen ko daganal bu fekkee amut deesu leen ko daganal wal adharu fii bi'ril baadiyati bihimal jawaaz ndax kon xeeti teen yooyu nga xam nit àll bi dañ ciy sonn nga xam ne xobi garab yi dañ faa bari lool ci duñ ko mën a muur dañuy jàpp ne rek. xobi garab yooyu cay dem ak ak tib na xeeti keew yeeg ban yeeg yooyu day mel ne rek moom moom ndox mi dañuy jàpp na dafa soppiku ca la ko moog ca ca la sax moog lu ci ndox mi rek moom lañ ko jàppee wa fi jaalil muxaalatil muwaafiqi kal muxaalifi nadar mu ne ndax def na def def na def almaa ndox façon ndox mi nga xam ne al muxaaliti dafa jaxasoog ndox luñ koy jàppee al muwaafiq ba pare nuróog moom bay benn léegi ci ay melokaanam yi ndax dañ koy jàppe kal mu xaalif yi ndax moom ndox mu bokkalut ñooy yem wala déet nazar am na ci taraddud la woon ndox mooy ndox moo xam ne cosaan li maa la woon loo xamante ni bineegar la woon yàgg lool bineegar kenn mënu ko jàppee xam nga ne yàgg na ba nga xëy ne lépp dañ na dem ba niroog ndox mi ñu gis ni ndoxum ndoxum ndoxum mi ngay naan nga xam ne amatul cafka xaw ma ngelaw la ko yóbbu dara yóbbu ko wala bu la neexoon nga ne kafe bu fekkoon mën naa nekk it ah xam naa sax dana jafe ndax couleur bi waaye xeeti façon ndox mu mën a doon nag loo xam ne du woon ndox laneen la woon maa la woon nga teg ko mun yàgg yàgg ba nga xamante ne dem na ba soppi ko ba fiy jaxal ndax danañ def maa moo xam ne mu xaalit nga xam ne dafa ndox moomu nag maa moomu dem na ba soppi dem ba jaxasoog ma ne ndox ndax da koy xool ne ndox mi baax na ngir ni mel léegi si jàppe ko ndox mi mu jaxasool wala déedéet da nga lii ci soppiku da nga xam ne vinaigre la woon ku ko beroon ca cosaan la na meloon dëgg-dëgg su boobaa dana ko soppi nga ne ko ndox mu baaxatut loolu mooy woo fi jaali ndax def na def al mu xaalit mooy ndox moo xamante ni du woon ndox dëgg-dëgg waaye ma mu soppiku mu jaxasoo la mu xaalit ca mujj jaxasoog ndox mi al mu waafiq ba pare ñoo niroo léegi ci melokaan yëpp nga xam ne lee amoon na melokaan wu soppi ko waaye dañ na amatu ci ndax da koy jàppe ndax moo kal mu xaali fi nga naan déedéet ñaari ndox yi bokkuñ nga xam ne da ngay xool naan nañ xool ndox mi bu fekkee li ko soppi bari naag bariwut laab naag bu néewee dañ ko sip ak yu mel noonu comme détails yooyu nga xam ne dañ dañ koy wax ci ndox mu soppi ko wala déedéet wala ndax dañu xool ni mu mel nii rek ne baax na nazaran wa fi tatxiir bi maa in jaala fi lfami xawlaan lii ba tey benn masala ndox moo xamante ni dañ ko def ci gibiñ ndax mënees na cee laablu wala ndax mënees cee laablu xawlaani ñaari wax am na ci wa fi tatxiir ndax dagan nañu laablu ndox moo xam ne da nga ko def ci gibiñ gàllax ndiku woo ko te yàggut sa gimiñ gi loolu ñaari wax am na ci diggante ashab ak ibnul xaasim ashab da koy tere ibnul xaasim daga nan lañ ko lii war ngaa mën a laaj ne waaw lii nan la nan lay nekkee ndox moo def ci gimiñ moom xaa dañ koy naan wala yu mel noonu waaye moom laab nag laabut ko moom kenn xamu ko waaye loolu war naa mën a nekk am na ñu koy daan def dégg na wala boog ñàkkut ci béréb yu ko def nit guux ndox gaaw tuur ndox ndax war na cee mën na wisu wala déet wala ndax da ko guuxoon xam naa ndox daa jafe mu guux ndox mi yàkkamti xool ndax war na koo mën a euh, raxase yéeréem wala yu mel noonu boo fi maa indi joxe fil xam mooy ndox moo xamante ni da nga ko def sa gémmiñ ci sart yi ma la wax yàggu ci gàllaxndikoo ko ndax bu ci yàggee ndox bi day soppi ko la ma mën a wax boo ko gàllaxndikoo day jaxasoog lor yi ñaari yoo am na ci ibnu xaasim daganal nañ ko ashab daganal ko waaye dañ ne xilaaf bi ci kaw rek leem ibnu xaasim mi ko daganal da koo daganal ci sartu mu bañ yàgg sa gimiñ lor yi bañ ko jaxasoog moom ashab mi koy tareet da koo tere ngir ne bu fekkee <clears throat> lor yi daa jaxasoog moom ba yàgg sa gimiñ kon day mel ne xilaaf gi mooy bu ci lor amut rek lay doon waaye bu ci lor amut ñoom ñaar ñëpp dañu dëppoo ci ne baaxatul loolu la Cheikh Mamadou Mawlud di way naan fil i in ju'ila fii famin bila mukthin wala madmadatin xulfun jala mooy ndox moo xamante ni da nga ko def ci gimiñ ci yàggu ci galaxndiku woo ko leneen xilaaf da ci am wa bi maa in joxi la vi famine vil mi ci gimiñ xawlaani ñaari wax am na ci wa kuriha maa un mustaamalun fi se ñi ngi dem ci benn masala xam nga doon na la wax ndox mi laab ndox mi laabut mi ngi lay bëgg andil nag façon ndox yoo xamante ni dañ ko sib nga di ko jëfandikoo boo amee maneen loolu lay waaj andi moom lay tàmbali dina ci andi yu bari wa kuriha nañ ndox mii may waaj a wax waaye nag lii naan na sib nañ ko lépp ñu ngi ko sib ci boo amee maneen foo ko fekk boo kuree sib nañ ngay jëfandikoo ndox mu néew nga di ko jëfandikoo it ci bëgg a jaamu yàlla tax ñuy wax mooy ngay baag a nga bëgg koo jàppoo wala nga bëgg koo sangoo farata wala yu mel noonu sib nañ ko ndox mu néew lay doon foo ko fekkin mustaamalu ndox moo xamante ne dañ ko jëfandikoo woon fii xadasen ci rafal xades wa fi xayrihi taraddud moo ndox moo xam ne da nga koo jëfandikoo nag ci lu rafetlu xadas a borom xam ne dañ ci am masala mi lu naqaree tasawur la fi mu mën a feeñe nga dékk nga jëloon ndab dékk ko di ci jàpp njàppin sa waaye nag ci kaw kuy ay ay cëram set rek la mën a doon ndax say cër bu taxee loolu du ci feeñ ndax ndox mi day soppi ko saa si ndox bu soppi ko baaxatul waaye ku say cër set wicci wicci nga doon jàpp di dékkandi ko ndox ma wala nga doon sangu farata ginnaaw bi nga dax raxasee fi la sobe taq ba mu set ba noppi ndax bu boobaa ndox mu sobe wu lay doon xam ne say sër set wi ci nga ko dëkkandiku fenn ndox moom ngay dëkkandiku bu fekkee soppikuwut tam doon ndox mu bëriwut nee na ndox moom dañoo sib nga di ko jëfandikoo di ci jàppaat boo amee may ndox loolu lay tekki waaye nag waxuñ dañu bañ kenn déggee ko ne ndox moo xam ne da nga doon jàpp mooy la des ca bool ba déedéet loolu kenn sibu ko loolu taxut di wax wala ngay jàpp li tis di dem ba tey loolu taxut di wax waaye liñ ci jublu mooy ndox moo xam ne da nga doon jàpp dëkkandiku ko ginnaaw bi nga xamante ni say seet sedd na ci amutoon sobe bu nañ tey ndox mi sart nañ ndox mu néew lay doon maa un ndox moo xamante ni mustaamalun dañ koo jëfandikoo fii xadasin ci yëkkati am toj kon ndox mel noonu dañoo sib nga di ko jëfandikoo waaye comme li ma la wax rek ba balañ ko sib ndox mi na nekk ndox mu néew te nga am pexe bañ koo mën a jëfandikoo ci leneen wa fii xayrihi taraddudun amma nag ndox moo xamante ni da nga ko jëfandikoo woon ci luul raful xades comme nga jëfandikoo woon ko ci njàpp moo xam ne dañ ko sopp njàpp mi ñu sopp bari na daañ leen ko wax incha allahu taala li sabaatin xattundabu tahaara qiraatu alqurani wa ziyara taallumun taalimu ilmi nawmu machun li sultaanin xakaahu alqawmu kaza rukubu lbaxri lilbaxaara fa qis ala zalikum sayyaara ba wayi jeex mooy ndox moo xam ne da nga koo jëfandikoo ci yiñ sopp jàpp am na njàpp yuñ sopp nga ñëwoon masalan nii di di jàngi xam-xam ni sopp nañ nga jàpp ngay dem siyaari ji ba borom xam sopp nañ nga jàpp ngay dugg ci jàkka doonte sax du waxtu wu ñu naafi la sopp nañ nga jàpp doonte julli woo fa nag laax booy julli wax waxaale wuñ ko ak yu mel noonu dem ngay seeti buur ba tey niki noonu njàpp yuñ sopp yooyu ne bu dee moo ci nga dékkoon ndox mi ñuy waaj wax ngaa ne di woon dafal xadas ne na taradud da ci am wa fi xayrihi mooy ci ndox moo xam ne da nga koo dékkandiku fenn ca soppiku wut cam ndox mu néew ci luur yooyu may waaj wax nag taradud am na ci wa fi xayrihi taraddudun wala ni ko noonu ba tey eh, ajjuma sangoo ajjuma xam nga dañ ko sopp ak yu mel noonu rek masala yu mel nii lan moo waral ñu ñu sib ndox mu mel nii mooy ndox moo dëkkandiku mi ñu daan dañ ko sib borom xam-xam yi dañ ca wuute am na ñu ne ndox moomu dañ ko tudde ndox mu bàkkaar ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis boo xam ne o kama xaala jaam bi bu fekkee mi ngi jàpp bàkkaar yi day ànd ak cërëm yi di tuuru di sotti ci ndox mi ba ci cër bi mu jël xas dañ ne loolu ndox mu bàkkaar moo tax ñu bañ ko jëfandikoo am na ñu ne li tax ñu sib ko mooy sikk sàkk dëgg-dëgg ndox moom nag neexut nag boo koy boo ko jàppoot sa xel da nga ci xaw a sikk sàkk am na ñu ne li tax ñu sib ko mooy wuute da ci am ndax ndox ndax masala mi nee na ko sib waaye am na ñu dañ koy tere am na ñu ko daganal kon ñett yoo xam ne ci jëfandikoo lu am xilaaf yu bari am na ñu ne li tax ñu sib ko mooy ibada taabudi la mooy lu ñu tere rek la daawuñ gis na ñu baax ñi daawuñ ko def salaf it eh, nit ñu baax ñi fonk mu def lu mel moo tax xilaaf da ci am tax ñu sib loolu moo tax loolu cheikh sunu sëriñ cheikh Mamadou Ali Ould Adud way ci masala bii ne mustaamalul xadasi fi ixtulifa bi kurhi wal jawaazi wa nafi wa fa li shakki wa dunubi wal muxtalafi wa lil ibadati wa tarki salafi wa raabiu taalili nafiyul xulfi is laysa yaxlu xayrahu min dufi ala kulli xaal loolu waral sibgi wa fi xayrihi taraddudun dégg nga kuriha maa un mustaamalan fi xadasin wa fi xayri ni ko noonu ba tey dañoo sib ndox mu néew moo xam ne am nga maneen mu néew mooy lan comme ndabul njàpp ngir kuy jàpp ndabul sangu ngir ku bëgg sangu moo tax mu ne wala ndabul sangu ndox moomu bi najisin sobe rod na ci sobe su néew lam yi ca soppi ko ndox mu néew ndox mu néew mooy ndabul kuy jàpp ku bëgg a jàpp wala ndabul ku sangu ku bëgg sangu sobe su néew toq sobe dem ci ci soppiwu ko ndox moom ba tey dañoo sipp nga di ko jëfandikoo am na leen ci borom xam yoo xam dañu sobe la boo demoon ci risaal bi abi sayyidul xeeraan loolu nga fay fekk loolu ngay tuxale it ci leen ci mazhab yi lu ma leen mazhab abu xanifa lu ma leen mazhabu imam Shaafi'i ak yenn ci borom xam-xam yi ala kulli xaal karaaxa gi mooy li gën a siiw ci mooy nag ci mu daw na am na ñu ko daganal am na ñoo xamante ni dañ koy tere nga xam ne dañoo jàpp na sax ku koy def moom ci mu daw woon moo ci nekk ku jàpp ci dox mu mel noonu dañoo sopp nga baamtuwaat sa julli gi boo fekkee julli gi ba dem nga baamtuwaat ko joxtu waaye ala kulli xaal Cheikh Khalil ñëw na fii ci ñi nga xam dañ ko sib mooy ndox mu néew sobe dem ci ca soppiwu ko eh, bu ko soppi woon moom waxaale wuñ ko aw wala xafihi kalbun niki noonu ba tey ndox moo xamante ni ab xaj moo ci xab ndox moo xam ne ab xaj da cee dugal làmmiñ ñu yëngal ko wala xal kalbu mooy dafa dugal làmmiñam ci ndab li yëngal ko ndox mu mën a doon xaj def ci xab ci xab ci dugal ci làmmiñ yëngal ko dañoo sib nga di wax nag ndab li lan lañ ci lan mooy atte bi incha allah ci bind ci kanam ndax muxtasar xel nas na ko na ne isa walaxal karbi fii naay ahadikum falyaxsilhu sab'an dana ñëw masala moom incha allah euh, ndab loo xamante ni xaj da cee walaxa fii mooy di ci xarraka lisaanahu da ko ci dugg ci dugal làmmiñ yëngal ko loolu dañoo sib nga di ko jëfandikoo bu fekkee am nga ma neen al mashhur waraakidun yuxtasalu fii aw raakidun ni ki noonu ba tey dañoo sib ndox moo xam ne raakid la ndox mu du daw baaj bu ndaw comme bi nga romb ci buntu bi nga ñëw nit dugg fa di fa sangu loolu dañ ko sib ci cosaan nit di ko def jaaduwut waxuma laa da nga defa sangu farata boo ko defee da ko yàqal ñeneen ñi kenn du ko mën a jariñoo duñ ko mën a naanati ndax raakit mooy ndox mu ndaw déeg bu tuuti wala baaj wala façon xeeti xaw ah, xaw yi nga xam ni dañuy sib nit di ko sangu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ne day euh, laa yaxtasilul junubu fil maa id daa'im day leen moytandiku yéen ñi am janaaba dem ci ndox mu dul daw di fa sangu ndax loolu da nga ko yàqal ñeneen waaye nag moo tax borom xam ne dañ ne lii feeg ndox ma bëriwul lool bu bëree moom kenn sibu ko wala boog mu am yeneen ndox yu koy fekk si loolu ba te kenn sibu ko ñenn ñi dañ ci del ne feeg moomoo ko amaa bu dee baaj boo xam ne yaa ko moom it wax di yàlla kenn du la ko tere nag ndax dañ ne tasarruful maaliki fi mulkihi adl laa jawr kasaxtu saalu junubin bi maa rakit moo tax am na koy charte yi illa istabxara aw xayran faqat kon kooku bu ndox mi baree lool xara mooy dem na ba mel na géej wala aw xayran faqat wala boo nga xam ne bëriwul lool waaye nag amoo mën a ndox kenn dootu ko sib ci yow ndax nag pexe amatu ci waaye nag boo amoo may ndoxit na doon eh, dégg boo fekk ci àll boog bu mu doon yëfi jàmbur boo defee ci yëfi jàmbur da ko yàqal dégg kon wa raakit ni ko doon bari ndox ne raakit mooy ndox mu du daw rek mooy raakit wala teen boo xam ne ndox ma dafa néew wala baaj ak yu mel noonu yëpp dañuy bañ nit ki ñëw sib nit ki ñëw dugg fa di ko sib alal mashhur ba mu des yooyu ñuy wax bismillah wa billahi taala tawfiq kon ñoomale ko foofu insha allahu taala ba kii bi ñëwaat ñu àggale bindi ci des waj'al binaa'iya binaa'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi